kuy yëngu léeg-léeg njaga hmm. nit ñi buñ jaawalee kuy takk ay soxna ak ko am teraanga am na koo xam ne yoru lu sukkar màdd mu ngi ñetti soxna jëm ñeent lay dëgg la mais bari na góor goo xam ni këram a ngi yëngu li ko waral mooy doon ko téyel dépense am maa la dégg am koo xamante ni tey ba ci ngénte sax boo nekk loo xalaat ci ngénte la danaan lu ngeen def baax na lu ngeen def baax na joo dégg rek dañ ko yoroo yóbbaale ma biire dogguma la bari na bari na kuñ naan ku dem ku dem ku ñëw ku ñëw ba ko fi waaw ku ñëw ba ko fi uh-huh. maanaam ñi dañoo am jom dëgg la na leen seen di def la mënuñu koo muñ yow da nga amul foo jëm rek moo tax nga toog dëgg la du ci du waa ah, am nañu bari ñoo xam ne tey amuñu fuñ jëm parce que lama ah, la ma lay wax bés bu nekk saa su ne dama la ko wax segam xóot ba sëy yàlla di mu bëggee sëy ba ni li ma gën a sib te mu dagan man yàlla li ma gën a sib te mu dagan xam nga mooy lan mooy ak passé bu dee ba ci biir xutba nit ñi naan amin ànd leen ci jàmm nga ni amin wala ngeen te taqalikoo ci njekk nga ni amin kon yàlla xam ne ni plus tard sëy ñaara ciy am mhm. di ngeen sëy par force mais taqalikoo dina am benn nga ténju ko mbaa yéen ñaar seen diggante yam fa mais jigéen ju nekk responsabilité yi sëy def ko jaamu yàlla seen tibi gii danga koy jàppee góor mbooleem koo gis mu fi liggéey jàppal ni soxna la mais am na koo xam ne moom jàgga xamante wuñ tur te biir seen TV la ñuy liggéey ñaata nit yoo xam ne man xamoo seen tur seen sant nga xam man ñaata nit yoo xam ne xaw seen tur jigéen buy sëy ànd ak borom këram day jàpp ni lii société la nañu bàyyi xel ni saa yu ñu yëkkitee ruux jigéen ak ku bëgg góor bu ni man jàppal ni yéen ñaar di ngeen sëy mm-hmm. am na góor ñoo xam ne ci benn la ñuy yem ba lay dëgg la am góor ñoo xamante ne dinañu romb neuf soxna neuf soxna ni mooy dañuy takk tàqalikoo takk fi mm-hmm. tàqalikoo am ñeent tàqalikoo am na koo xam ne mën naa xëy tàqalikoo ñeent ñëpp am na góor mantu da leen énervé bu ñu xëyee ñaari soxna yi ñu am dañaa leen yéen ñaar ñëpp ñu bi leen seen kër yaay parce que lu tax ñaar ñi dañoo dëkk ci xuloo mais yéen ñaar bokk ngeen benn góor damay wax ne jigéen fu mu xas am doom dootu fa sëyee sañ-sañ dafa sëyee xel Mm-hmm. njaga mm-hmm. jigéen fu mu xës ba am njaboot dootu fa séyee sañ-sañam dafay séyee xelam parce que xam nga lu tax mantu lu waay mer war koo nettali jamono ji bu meree saa yu xolam séddee mu réccu li mu waroon wax mm-hmm. moo tax euh, la yonent bi noonu lay sa sadidu bi suratin nee na jàmbaar nekkul ci borom fët fët de nee na inama sadidu jàmbaar pire man yamliku nafsahu mooy kii am maîtrise indal xadabi saa yu mere bari na lu waay wax daaw mu dugg ci réseaux sociaux yi ren ka nga ko jëflante loon ba wax lu ñaaw yàlla doxal teraanga seen diggante la juboo ci seen diggante mhm. nga dindi tuuma bi indi ko ñu indi la vaar mhm. fekk xamuñu ni am na nañu jaar suuf ba doxal waxtaan seen diggante mais xale yi nekk internet bi xamuñu loolu dañu indi sa waxi daaw ak sa waxi ren tegal la ko ñaari taqaloo te góor warta am ñaari kàddu mhm. moo tax jigéen ji sëy moo xam aaw la moo xam ñaareel la njaga baat boobu ma la wax saa su nekk na ñaari nit nekk ci jàmm mantu moo xam ay wujju la moo xam jëkkër ak jabar la wax naa la ba nga tàqale ko wax na ko sànq Euh, sëriñu tariyaax amul kenn du ko njëkk safara. Mhm. parce que lu tax médecin du tàqali sëy wala déet. Mhm. médecin amul piquet bu mu lay piquet pour tàqale kat tàqale la sëy. Mhm. mais sëy bu tàqali ko ñaankat lu ëpp moo fa jaar moo tax yonent bi waxoon ko ni ñaar ku leen tàqale defalatoo yàlla lu tax nga dem aljana. safara moo jekk ci yow. kon tey jigéen ñiy sëy nañu xam ne tey góor benn objet la boo xamante ni yàlla moo la boole ak moom. am góor gu la daan jox dépasse njagam bëggee dafa métti de. bàyyi di dundal tudd la. ki ngay bëgganteel fekkeewul yëgul xamul bàyyi di solal yére ki ngay bëgganteel fekkeewul gisul xamul bàyyi di def ba nga màgg ba nga commencé sol sëva naturel wala ngay léttu wala ngay muuru xëy daje góor goo xamante ni da daje ana yow ana man mu tourné yéen ñaar kenn ku ne dee sa morom mbëggeel gu teex nga ñàkk sago ci sa morom bàyyi moo jëndoon xaru génteem moo tudd doom moo def lépp moo màggal bàyyi nga bàyyil waa ji wala nga bàyyi ba nga ne bàyyi kun ma génn sa kër toppi waa ji nga xam ne mbëggeel am doole am doole <laughs> ak am doole waxal déwén waxal déwén waaye oustaz téere da nga wax yaa oustaz bu ci pare. fula la ci pare bu day tiitaru aju. te tiitaru aju <laughs> li mu wax dafa neex dama concentré wu ba concentration bi ëpp. daggee moo neex. Ah. loolu at ça c'est la vie. c'est mantu gis nga àdduna fi dara méttiwu fi. lay dëgg lem neex naa suukar boo ko suukaree mu saf boo ko mu saf. nit ñi faaw ngay faw nga ngay jëllale. Mm-hmm. yàlla dafa ne yonent bi wa'fu anhum del jéggale wastaxfir lahum del jéllale di jéggale parce que mooy tax gis nga ñi nga yilif ñuy ay jullit fayoo leen weer de te ñu ngi ànd ak yow di daan ay xare seen tànk yi di dagg fa bi ma raxmati mina lay jëkkër bi ngay àndal mantu Seydou Maguette ña ko ñoo koy Maguette tal mm-hmm. am na aawo boo xamante ne gis na man samay xarit ñi ci ëpp may àndal dañoo réccu lu tax ñu takk ñaareel yenn saa yi ma tooñ leen ne alaaji man de war naa takk yii alaaji bu ci dugg parce que tey am na ñoo xamante ne gis nga mantu lii la jotagu rek moo la jafe góor gi nii def ñaari loxoom génn benn loxo bi tàndarma nekk ci mu ne beneen mu ne yeneen doom yi ku xam li ci loxo bi yaa ko moom xale yi di bëgg a rey seen bopp léeg-léeg ñu ñëw seen yaay yaay sama papa bu nelawee dindi la ci loxo bi seen yaay ak seen papa ñu kompaloo xale yi dem ba maar naka ci këriñ la ci def bi mu tàllalee xale yi ni ko moom yow papa kon li moo taxoon nga ñuy sonal bis bu ne mu leen góor a ngoog fekk kumpaa ngi koy rey ci yow day jaamu yàlla ci yow waaye bu kumpa googu dañee rek mu wàññi valeur am ci yow. ay mm-hmm. koo fi gis yàlla moom programme noonu nit mantu bi muy doog am téléphone bu bees bi nangul mu xoosu fenn. Mm-hmm. mu daanu sax day crise fi mu mm-hmm. toll nii bi mu koy doog a sol. da koy mu feeñ ci kanamam mais nag lu mu yàgg a dugg ci ndox day gën a froissé mais léeg-léeg day jar nga goome passé solaat mu kàdd kàddaaral maanaam sëy dañ ko war di organiser di ko neexal muy neex képp ku dugg ci ay jabar réccu ko mbëggee la dugaloon ci jabar waaye responsabilité dugalul dugalul woon sa jabar. bari na ñoo xam ne sax ñu ngi am ñaareel mais ne ci jàmm. képp koo xam ni responsabilité moo la hmm. dugal ci soxna doo ko réccu te yàlla na yàlla defal la nga am ay soxna yu baax nag. Hmm. ñëwal. adduniyaa mataawun loolu maa kaa ko wax yonent yonent bi nee na li bu baax bi laay bañ mu réer ma yonent bi nee na adduniyaa adduna mhm. mataawun um, coono kase la wa xayru mataa ay duniyaa yonent bi nee na coono bi gën ci adduna xam nga coono bi gën ñu ne ko lan la mu ne azaw jotu saadax soxna soxna su baax soxna su baax mhm. boo ko amee da ngay mhm. stable bëri na bëri na góor gu ñu respecté ci mbedd mi góor gu mën a sañse ci mbedd mi bëri na góor gu am jàmm ci mbedd mi mën na am yorul lu suukar baraada. waaye ay mhm. soxnaama juboo dëgg la. xanaa mhm. mhm. ne xamoo ni alal moo ngi tàmbalee ay soxna yu juboo wallaay dëgg la. may ñaan ñi xuloo te xamuñu lu leen jote te ñu xam li leen jote sax war nañoo mën a rus seen borom kër mi leen fi andi. xanaa xamoo ni borom kër bu ñaari soxna yi xuloowee bu ko waxee bu ko waxul neexu ko. déedéet ku defee ni day reetaan reetaanu dafa siiñ. bari na borom kër yoo xam ne reetaanu ñu de dañuy siiñ rek. nga defee dañuy ree. wala da nga koy xamee ci mbaru bët yi nii. waaw merci ah. beaucoup. <laughs> duñ benn ah, doo ko jàngal. lu ah. ñuy def stage. nii walaay walaay. xoolal sa sa sa bët yi lemu. fekk yow réewoo di nga def. xale bu jigéen bu ci wéetal. est que gañu ñu sax pour jooy. gañu waaw ñoo xam ne yàlla bu dëgg rek seen rangoñ rek gañu. dañuy gañ rek naan. fekk <laughs> yaa jooy. xol. ñaari jigéen yu war a juboo te xuloo. waaw. ku ci wéet ak sa borom kër ba defe nii danga nga koo coqutaan ba mu ree da lay sagal day dafa reetaanul dafa siiñ xam nga lu koy bégloo lu koy reetaanloo mooy nga jubóog sa sa dawle. na si jàmm xanaa xamoo ne am na borom kër goo xam ne toog ci ëtt bi ak njabootam ko dàq lu mën a am waaye mënu ko mais am na aawa yoo xam ne Fall doguma la lii la ñu xam moo tax duñ ñu jubóog seen i wujju waaw pour jëkkër ji ne ci problème problème am na wujju yu ñaan xam nga lu tax billaahi am na wujju yu ñaan parce que jàpp nañu ni borom kër bi nekkee ci jàmm du rëccu lu tax ñaareel bi pour borom xool soxlawuñu ñaareel bi de waaye yow ko góor gi bu nekk ci jàmm loolu lañ bëgg loolu la ñu bëgg yëngal la te ñaareel ba souvent damay wax yenn saa yi nga bëgg a aye fee maam Seydi bëgg a aye ci aawa ba ñaareel ba di créer problème. waaw waaw pour tàngal xolam pour bu demee fee. énervé wu énervé wu. waaye bu demee xam nga lu tax. kaasu si bañ koy jox mooy seral merga. Hmm. yaram ba yaram ba. yow mu jéppi la ànd kii. xam nga lu sama papa Ahmed Aidara nee na kër ga benn kër nijaayam. waaw ñaareel ba bu amee bu ayee. attaay ba ba deux heures du matin lay pare. waaw mais su dee aaw bee ayee. waaw xam nga ñaar bi mooy attaay chaque balaa 9h ataaja jeex na. dëgg la xam nga lu tax mu tëddi moog jëkkëram laaj ma lu tax laaj ma lu tax laaj ma lu tax daa xulle ba mënta ataaya. ah bi nee na moom dina ataaya bu ko ataaya ñaareel ba ataaya chaque jour. waaw moom ñaareel bu ayee. day ataaya 8h 2h 3h lépp pare. neex. mantu. bu awa bi ayee léwal bi une heure du nga koy naan. waaye ko kontaan naa ci moom njaga booy dem biir bu jëm fajar day ñàkk jox ba lu war a aawa ba ah. jàngi ji attaaya nee na aawa bi day mujj sonn dem tëddi bàyyi leen fa jëkkër ji kii bi di attaaya xoolal loolu <laughs> jigéen feem mantu jigéen feem boobu nag xam nga lan moo doon lan moo doon lan moo doon lan moo doon rôle aawa bi waaw jàngi attaaya na jël ataaya yomb na yomb moom ñànk ataaya yomb moom ñànk tana yem waaw billaay neex naa defar neex naa defar xolal amul yëngal na jël warga bi def waaw waaw jël suukar